non mais c'est incroyable c'est incroyable. nous sommes russes. gisoo sommes kenn ñom sommes a nous sommes nous am nous sommes nous ñu ci nous sommes am sommes ah. gisoo kenn ku di wax a noppi nous sommes nous bu day défendre day xam la déception totale la respecté kon ñoo ko déggandoo muy kàddu Mollah Morgun moom su demee ba nga xamante ku ko ne woon 2024 ay transhumants am ci biir Pastef du ko mës a gëm moom mi bokkoon ci biir parti Pastef kon moom am na njàqare am na trahison am na mbetteel ci li nga xamante ni jaay nañ ko comme projet kon tey lii nga xamante ni ñi ngi koy gis ci biir Pastef je crois la tey moom ci boppam leaderu parti moo ne képp koo xamante yaakaar nga suñ jëlee nguur leen duñ la seen biir donc Diomaye si seen su dee wóolu nañ seen bopp ko ñoom ñoo moom 54 mars si juróom-ñaari weer sénégalais yi dañ leen koy delloo je crois que dañu waroon dem ak seen liste personnelle moo gën ñuy topp ay présidents tey ku xool Déthié Fall xool Abdourahmane Diouf xool Mimi xool Samba xool kii nga xamante ne mooy Galoba ba ci kii nga xamante mooy Doura bërki démb nga nekk ci ginnaaw Amadou Ba ñu fal la directeur l'ONAS ñoom ñu ñëw dàq la remplacer la kii nga leen bàyyi woon len ginnaw ginnaaw ci ñi nga xamanteni ñoo leen doon xex pour buñu ñu au pouvoir tay so delloo tay je crois que say pexe moo jubul en tout cas muy cadre yi nga xamanteni mo la Morgan yëkkati nako ñoko ñoo ko muy transhumance bi nga xamanteni gis nañ ko ci passif ne ce fait que les ret sénégalais war nañ ci utiliser expérience pour que le 17 novembre ñu xam ban décision lañuy jël ak ñi ñu duggal ci réew mi liñ doon xex ak changement bi ñu bëgg ak tay ñi ñu wat seen biir est-ce que ñep yamu yamuñu en tout cas à vous de juger le 17 novembre ce sera le jour de la vérité pour vous Yeah.